nag professeur Tounkara daal bu mu ñëwee moom wax na ma waxu bon président dañuy jël léegi dañuy jël en charge xam nga mm-hmm. ñu fexe ñu ci ñu fexe nu ñu lijjanti léegi nga dem mm-hmm. ma ne ko noonu man soxla ma dara lu jógee ci politiciens yi soxla ma loolu mais Karim dagguma euh, mm-hmm. dagguma la loo nekk tamit ci xeex feebar feebar la ah, xeex la dëgg la moi je pense que mënoo nga accepter au mois ñu faj la soo paree nga continuer sa combat waaw mais xam nga Kati man sénégalais laa Abdou Karim Gueye ak bopp cest à dama ni man maay kan man ba mën war a tëdd feebar ñu war a jël contribuable Sénégal bi man di ma ko faja man parce que fi ma tëdd man chambre bi ci topp koo xam mi ngi tudd Ndiaga Diaw xëy na wala Ibrahima Abou Sène wala Astoufal ma feebar te sénégalais dëkk ci dëkk bi lu tax defaluñ ko loolu lu tax man war am privilège plus ko yu ëppale kooku waaw mais xëy na kooku xamuñu ko mais c'est ça c'est ça le danger au fait xamuñu ko mais sénégalais la day natt comme ñëpp xam nga contribuable mooy natt mhm. kat nga dañuy dagg impôt impôt boo boo fi ne nii grand bi su jëndee euh, crédit sax dagg nañ ko impôt per su duggee su jëndee ticket pour seen match sax dagg nañ ko impôt loolu mooy imposé dañu ko imposé ñun ñëpp ki feebar ki ñu xam ki ñu xamul sëriñ bi ñëpp mais dañ imposé ñu imposé ñu loolu yëpp dajale ko muy contribuable du Sénégal ñu jël ko jox ko ay nit ñoom ñu jël ko di tànn ñi siw ñu leen ci évacué leen faj bàyyi ñeneen ñi pour lan xaalis boobu suñ ko jëloon tey bi nga suba nga dégg ñu ne euh, faj nañ Diop Fall day dafa amoon problème mu faj nañ ko nga dégg ñu ne diw prend benn célébrité feebar na benn mbër jël nañ ko en charge faj nañ ko mhm. ah léegi nag mbër bi nga xam ne kenn xamu ko nag duuru faal mi nekk fii ci ginnaaw nag te moom ko mbër bi ah koy wax loolu ay itam Iran ngi ñu woo ma ma ma toog ah, waaw itam Iran nag nangam nangam duñ la woon rek bëgg la jàppale ci dégg naa yow Daara sëñ Babacar ñu bëggoon la ci jàppale waa lii nag ah xem nañ ko nag deux cent millions la ma ne lan million lan mu ne non ñaari valise bu ci ne cent millions la ma ne président daal nekk bala ngaa xam sa waaye rek nga yegg ba këram foofu laa njëkk a juutoo daanuwuma damaa juutu. léegi nag après yow ma ñëw man. non li muy c'est sérieux après man ma ñëw man man ma ñëw man Karim. Mhm. ñu ne ma léegi non Karim yow kaay léegi nag benn huit millions quinze mi fi kaa ñu yóbbu la nga faju après ñu bàyyi. beneen mère bi nekk foofu après ñu bàyyi beneen paa xale boo xam dañu ko opéré après mais après léegi man sama conscience quoi li ma doon xeex lan la ah, mhm. dañ naan noor yow da xaru xaru ban xaru su ma lekkoon xaalis te war a dee damay dee minute yu ma war a dee dama ko yokk su ma lekkee xaalis te war a dund damay dund mais est ce que man après man lan laa ameel parce dama ne man dama ñëw ne la xurum xaax laa la wax mooy kàddu ñi seen baat nekk ci suuf ki xamul ki kooku man moom laay xeexal mhm. est-ce que dama war a faju bàyyi ko fi damay fexe nag ba sama feebar bi may xeexaale ci ba suba moom mu mën a am faj bu mucc ayib mooy ma bañ xaalis boobu noonu leen ni xaalis dañ ko a def fii ñëpp ñu maasee mm. mais mais mais non mais moom pour père man moom man mm-hmm. sénégalais yi nag am na si ñoo xam ni ñoom d'accord ñu damay comprendre dañ naan xaalis bi xaalisu réew bi la Karim mm-hmm. bu ñu la ko joxee da nga war a faju xaalisu réew bi la mais da nga am ñoo ko bokkal looloo tax nga war ragal li gën a taaral Sénégal pako xam nga lan la mooy xaalisu réew bi la sama wàll laay jël réew kenn du ko woo di séddale mel ni ku nekk ci màggal ba gàmmu gars yi tooguñ affaire du pàccoo quoi du réew du gato bu ñuy partagé dañ leen teg fii pour ñoom ñu gérer Sénégal gere bu mucc ay ba ñun ñëpp ñu yokk maanaam ay sàppe la ñun ñëpp ñu bokk yam mancé ci réew mi donc kon bu ñu góorgóorluwulee ba ñun ñi nga xam ñoo wax ba ñu ñu xam ñu xeexal Sénégal tax ñoo jóg ñun ñoo war a njëkk mën a bañ yenn yi d'abord ñun ñoo ko war a sama salaire cent cinquante mille la bi mu dee sa compte am cent fekk bi ñu xoolee bi ñu toppee tracé salaire la cest à pour wax lañ ne dafa mën na nekk quoi sénégalais yi nag kat yi ku ci siw yaa ngi xool ñu le président xamee noo mën a ràccee sa naaxa noo kii taxaw gërëm président même sooy liggéey ci télé bi sax El Hadj Ndiaye malaaka la day naaw booy liggéey feneen télé nga ni c'est-à-dire loolu mooy problème bu sénégalais au fait ñoom au fait seen problème mooy ñoom au fait duñu nga dénc sa bopp nga da ngay dénc sa bopp et nga am looy séexlu tamit man loolu laa gëm quoi man man damaa gëm ni te réew mi dañ ko war a jóg loolu dañ cee war a jóg dañu war a bàyyi seen yooyu jël xaalis di ci faj ay nit pour suba ñu leen tagg di leen gërëm c'est pas normal lu ñëpp bokk la nañ ko teg fi ñu ko war teg ñëpp yem ci parce que alal bi alalu réew mi la